du Sénégal parce que dañoo jël euh, askanu Sénégal par surprise teg leen euh, manipuler leen euh, jaay leen doole xoxatal leen ba kenn sañutu woon wax les gens avaient peur de parler tey grâce à au courage des Sénégalais li nga xam ne dañoo jóg taxaw réclamer li nga xam ne mooy seen droit dem nañu tey ba ñu mën a am procès parce que dañoo foo ni procès du am ba ñuy wax justice pour Adji Sarr dañoo foogoon ni procès du am euh, mais dañoo jàppoon ni que li nga xam ne moo jaadu pour Sénégal li nga xam ne moo jaadu pour jigéen yi li nga xam ne moo jaadu pour Adji Sarr mooy procès am donc loolu moo waral ñun suñu taxawaay CODAS ñu ànd ak moom euh, nekk yaayam parce que njërim la nekk papam néew di doole la moom pendant deux ans liggéeyul mënul faju correctement su ma leen waxee lii exclusivité la aji dem na hôpital fajuñu ko on lui a refusé les soins on l'a traité d'une manière boo xam ne dañ ko defal mu mujjee génnee perfusion bi dem donc xale bi calvaire bi mu dund dañoo ànd ak moom jàppale ko pour mu mun a am courage continuer combat bi nga xam ne moom la def ba yegsi tey ñu am mbégte gis avocat bu jigéen euh, maître Mame Coumba Mbaye plaidé def benn réquisitoire benn euh, plaidoyer boo xam ni dafa dafa yëkkatiwaat vraiment courage bi ñu am si suñu justice ak ci jigéen yi di jàppale jigéen parce que Adji Sarr wéetoon na ci combat bi te lu ci bëri jigéen yi ñoo doon dooleel ki nga xam ne moom la ci euh, moom la moom la accusé on la on l'a accompagné moralement psychologiquement Adji Sarr bi wax boo ko xoolee par rapport ak Adji Sarr bi doon waxtaan ak maître El Hadj Diouf il y deux ans ben Yarlak Yalila, c'est diamétralement opposé. Donc, de féliciter la justice euh, sénégalaise, les magistrats, l'ensemble du corps des magistrats, mais aussi les forces de l'ordre. Parce que, façon malgré ça, ils ont tenu. De féliciter le président de la République, hein, féliciter le ministre de l'Intérieur, euh, président Macky Sall, euh, président un bon famille, il a été courageux et il a été tempéré. parce que on l'a provoqué il n'a pas répondu à la provocation mu bàyyi yoon doxal parce que lii c'était une affaire privée il n'était pas question que mu tombe dans le piège de la politisation de cette affaire maintenant ñu ñuy féliciter euh, monsieur Antoine Diome ministre de l'Intérieur général Moussa Fall ñi nga xam ne ñëpp ñoo amal Sénégal njëriñ gis nañu ki nga xam ne Adji Sarr moom la joteel dafa leen jël di leen dugal ci euh, waxam ci problème privé di leen tuumaal ba ci boole président euh, Marème Euh, première dame madame Marème Faye Sall deful waxul donc nous avons vu benn genre euh, les mœurs qui vont qui sont partis en débandade ndax pour sauver une personne extraire une personne des nœuds de la justice donc aujourd'hui aujourd'hui euh, on a l'espoir gis nañu Adji Sarr mu taxaw am fulla faire face à ses responsabilités faire face au magistrat euh, à la justice wax li muy wax te waxam neex neex a dégg ñu gis Ndeye Khady mi nga xam ni moo ñëw ànd ak jëkkëram ñoom ñaar lu ñu wax bu ñu leen interroger ñu delluwaat ñu changer version donc il y avait aucune cohérence donc di wax ni combat bi on le fait pas seulement pour Adji Sarr on le fait pour Adji Sarr bien sûr avec CODAS avec euh, toutes les euh, femmes les vaillantes femmes comme ay ñoom Ngoné ay ñoom euh, Sarata et toutes les femmes qui sont dans les réseaux sociaux avec nous Gabrielle Kane je pense qu'elle a des problèmes de santé ñu ngi koy jaanal mu wër rapidement et qu'elle revienne côté aux côtés de sa sœur Adji Sarr donc nous sommes toutes une famille une seule et même famille qui combat pour les mêmes principes mooy les droits des femmes pour la République et pour l'honneur des Sénégalais mais Ndeye Khady man duma défendre man man wax dëgg yàlla jigéen rek laa gëm je suis pro femme mais du ma du ma euh, du ma dem à l' extrême ku def jigéen bu def crime da ngay payer tes droits. Euh, nous sommes des femmes de ñun on veut être les héritières des femmes de donc ñun suñu responsable dañ koy assumer avant ñuy laajte suñu droit dans la société sénégalaise vous avez compris procureur dañ ko topp maanaam nguur gi c'est le peuple le procureur il agit au nom du peuple moo ko topp ñun mënuñu ñëw nekk ci digganteem ak nguur gi est-ce que yaa comprendre même s'il est une, une femme elle a des responsabilités sur le plan civil dans cette affaire.